asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi di safoo seetaan Al Imran TV ñu ngi leen di nuyu di fas yéene ànd ak yéen ci benn émission bu yees bu tudd jotaay ndaw ñi ku wax ndaw nag wax ëllëgu réew dinañ ci dalal ay boroom xam-xam yu seen xel màcc ci ay tomb yu fasantikoo ngeen ciy ànd ak seen mbokk Kumba Sow ku bëgg topp jotaay bi nag mën na abonné ci seen chaîne Ali Imran TV te bu leen fàtte itam bës ci cloche de notification bi.